bàyyi radiallahu anhu wax mu ne summa jaa'u li jëhlihim yowma uxdin fi xamisin xuyuluhum bil jimaali mu ne summa jaa jaa'u topp topp dikkaat nañu keroog bisab uxud ngir seen réeree bi ñu réeree digaale bi nga xamante ne digaale nañ ko ak yonent bi réeree bi ñu réeree ki ñu digaaleel mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam mu ne keroog dikkaate neen bisu Uhud ginnaaw ba neen gañee Badar nga xam ne Badar ak Uhud daanaka benn at rek a leen séparé mooy ci ba ñu bañ leen ba ñu gañee Badar ñoom jullit ñi ci saa sa déwén si rek ci lañ jox rendez-vous xeex Badar nag xeex bi programme wuñ ko waaye Uhud dañ koo programmé soo xoolee mu ngi am ci ñetteelu at ci gàddaay gi mu ne nag ñu ngi dikk nag ci xare Uhud fii xamisin ànd ak lëlëb xare mooy armée boo xamante ne cinquante cinq mille hommes la mooy juróomi junniy nit yoo xamante ne ñoom ñoo composé lëlëb xare bi mooy armée bi mooy comme rangée yooyu ñuy def noonu rek bëri fees del waaye nag ñëwuñu ñoom dong dañoo ñëw ànd ak xuyuluhum bil jimaal yi ànd ak seen fas naaru góor yi leen indaale yoo xamante ne dañ ko rax ak ay gileem keroog noonu leen dikkee ñoom yëfër yi bi maanaa daal ñàkk a nangu gañe bi leen gañe woon ci Badar ndax dañoo furle su ñu nee furle mooy koo xamante dafa ñàkk nangu defetam nga bëre daan ko mu ne déedéet daanoo ma kaay ñu bëre waat mu ne keroog furle bi ñu furle moom moo waral ñu ñëwaat ne déedéet il faut ñu jël seen revanche ci xare Uhud moo tax ñëw na nag cakaayu wanewu wane seen doole ak seen armée waaye terewut yonent bi salaa salaam ci la teg stratégie bu am doole boo xamante ne stratégie boobu moom moo tax jullit ñi war a gañe xare bi nan lañ mujjee loolu la bàyyi dina tëddi nii mu ne xazamuhum aydan wa naalu inxifaadan bin xifaadil kuffaari ninnal maali mu ne xazamuhum ba loolu amee dàq nañu leen wala boog gañe nañu leen ñan ñoo leen gañe jullit ñi ba tey ay dan ba tey wanaalu ñu daal di am inxifaadan ab suufe ñoom yëfër yi mu ne nag nil nal maal yi am nañu kawe ñoom jullit ñi bin xifaadil kufaare ci suufee yëfër yi yëfër yi fu ñu amee suufe rek jullit ñi ñoom dañ fay amee amee kawe mu ne waaye nag malheureusement comme yonent bi dafa tegoon ay arquier mooy ñoom dañuy yor fet ci kaw montagne yi ku ci new jox la instruction ne waroo wàcc yàlla def nag keroog ñu mooy ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom jullit ñi ba loolu moo leen di waral déroute bii bàyyi di nettali mu ne xaalafu taaha is araada ilaahi xayra fawzin min zal qitaalil xaali kasaru li nabii ixda sanaya wushima derao fawka taahal aali bàyyi ne xaalafu wutee nañu wutee nañu wala bokk may nañu taaxa suñu waxee taaxa fi mooy ndigalu yonent bi ndigalu taaxa is araadal ilaahi ba yàlla borom bi namee xayra fawzin gën ci ngañaay gën ci victoire minzal xitaali ci keroog xeex boobu alxaali bu kaye boobu xeex bu seer boobu xeex bu xeex bu am valeur ci lislaam dëgg la métti woon na ci jullit ñi waaye nag xeex bi tax na tey jii képp kuy dem màkka sooy dem kullu ziar faw nga jaar uxud ndax juróom-ñaar fukki jàmbaar wa wadd nañ fa waaye it ci xeex boobu la ñu bëri shahide kon métti na waaye nag ñi ci daanu ñëpp dañoo shahid bàyyi mu ne kasaru dammees nañu li nabi ñeel yonent bi ixda sanaaya benn ci ay sellam mooy bañu kawam yi rushima derao mu ne topp it ñu ñu ñu daldi nottaleef ñu nottaleef mbubb koŋom bi maanaa mooy ñu dal di ko dóor jaasi ba mbubb mi nooy waaw ba mu ba mu ba mu noot nga war a xam ne ne kon xare boobu rëy na ndax yonent bi saa salaam benn yoon la musa rey ci mbooloom xare yëpp dañ ko daan tàntal muy joxe instruction waaye bii keroog agsi nañ ba ci moom ba damm bëñam moom yonent yàlla moom saa salaam loolu lépp nag li ko waraloon mooy jullit ñi ñoo toppul woon ndigal nga xam ne ndigal dafa am solo bàyyi di woy loolu mu ne wa mada xamsatu shahidan jalilal xat bi ay nii tabkiya li faqdi simaali bàyyi ne wa mada topp wéy na xamsatu xamsa jàmbaar faq tëdd boobu shahidan mu doon koo xamante ne aji shahid la jalilal xat bi ngir muy aji màgg xew-xew keroog ci moom xamsa daanoom bi mu daanu keroog ci Uhud mu ne tabaxi ay nii sama bët dina continuer di jooy man bàyyi li faq di simaali ngir ñàkkab boobule wéeruwaay jàmbaar jooju nga xamante ne wéeruwaay la woon ci jullit ñi mu ne daxikat inda zaaka jannatu adnin wa bakat aynu ahmadal hattaali mu ne daxikat jooy na inda zaaka ca foofale jannatu adnin daxikat ree na inda zaaka ca foofa jannatu adnin bi maanaa reewu kontante keroog ba Hamza daanoo jannatu àddina àjjana bi nga xam dañ koo préparé pour jullit ñi pour terale leen àjjana jooju dafa daal di kontaan daal di reetaan reetaanu mbégte ne ah tey am naa gan bu kawe bàyyi loolu lay woy mu ne wa bakkat waaye nag àjjana ba muy kontaan wa bakkat fekk na it mu ngi jooy aynu ahmadal hëttaali bëtëb yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk di seb-sebi di yol alxëttaali bët bi nga xamante ne mooy aji yolaa kon mu ne hayaja saxba inda zaaka maqaalun ma tataahal aminu fii zal majaali mu ne hayaja yëngal na as saxba saxaaba yi inda zaaka maqaalun ah ci waxtu bi nga xamante ne annoncé nañu ne Hamza ibn Abi Talib dafa des shahid na daanu na dee na boobaa nag saxaaba yépp a yëngu ñëpp a jaxasoo xare bi jël beneen tournant ñëpp jaxasoo bu maanaam ñëpp découragé ñëpp jaaxle mu ne nag mu daldi am ay wax yu tukki yu yu yu jib ay wax yoom dañoo jib yoo xamante ne nag waxu seytaane la laxasu si wax yi lan la nee nañ maata taaxa dee na sax taaxa la amin bi yàlla wóolu ki yàlla wóolu kooku dee na te yàlla kooku yàlla préparul mu dee ci xare boobu ñu ne dee na fii zal majaali ci boobule lef bi maanaa ci boobule champ de bataille kon keroog ba loolu amee ba ñu annoncé ne Hamza dee na nun la seytaane yuuxoo ne it yonent bi dee na sallallahu alayhi wa sallam ñëpp daal di découragé nag su ko defee jullit ñi du ñu am doole dañuy jaxasoo waaye nakate euh, yàlla bàyyi radiyallahu anhu mu ngi wax naan summa aadu lamma ra'aw nafi nafiyal mawtil Mustafa kulla basilin binni daali waaye nag ndekete mbir mi yamut foofu topp nag ba ñu demee ba gis ne nag ndekete loolu amut ba waxu seytaane bi dañee comme pënd nu muy wuree su ma aadu topp nag ñu songaat ñu dolli siwaat songaat yéefar yi ñoom jullit yi lamaara aw waxtu bi nga xamante ne gis nañu nafiya mawtil Moustapha dàkkab shahidu Moustapha mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàkkab deewu yonent bi ba ñu demee ba gis ne loolu ndakate amut ah ñu daal di dellu si mu mel ni bàyyi bàyyi ne mu mel ni ah nii ñu ne ko loo ci jublu ci wax jooju mu ne kulla baasilin bi ni daal yi bi maanaa bépp jàmbaar boo xamante ne rek wàcce woon nga découragé woon nga mu ne jógaat nga ngir jàmbaar loo ngir xeexaat keroog ba nga yëgee ne yonent bi deewut su ma maalu ilal firaari jami an muqrini muqriniinal jimaali ay mamaali mu ne su ma maalu topp mu daal mu daal di jeng ñu daal di jeng ilal firaar jëm ci daw jami an mboolam seen bi maanaa ñu daw waxet ñoom ñëpp ba ñu gisaatee jullit ñi melaat ni ay jàmbaar ñu daal di jóg ñoom ñëpp xeexaat amaat doole koo xamante ne rek yàlla rek ko xam songaat yéefar yi ba tasaarewaat leen moo xëre niinal jimaal yi ay mamaal yi ngir ñu doon ñu mel ñu ñu ñu lëkkaloo ak seeni seeni giléem ay mamaal yi daw bépp daw nag ànd ak seeni giléem ak seen ay lépp daw waaw mu ne kon loolu mu ngi am keroog ba nga xamante ne yonent bi daf leen tegoon ne leen bu leen wàcc ci kaw montagne yi pour ñu surveiller côté yi su waaye ak yor seen ay fett waaye keroog ba nga xamante ne jullit ñi gis nañ seen mbokk yi toroxal yëfër yi ba ñu dem ba yaakaar ne ñoo gañe combat bi léegi bu ñu jeex ba yëfër yi commencé daw ci lan daal di nag wax seen biir ne ah ñun de suñu yéexee màng yële mooy màng yi mooy bi maanaam lépp loo xamante ne yéefar bi mu noon bi mu ngi koy bàyyi ci ay bien wam suñ ko seetaanee rek ñoom jullit yi dinañ suñu yeneen mbokk jullit yi dinañ ko séddoo te duñ duñ ci am dara te yàlla wax na ci alxuraan ah xulil anfaalu lillaay yàlla moom moom màng yi ak yonentam waaw ndakate yàlla séddale na ko démb waaye ñoom ñu gis àddina rek daal di daw pour ne xaar ñu dem jëli ci màng yi màng mën na nekk xeej mën na nekk mbubbi koŋ mën na nekk alal mën na nekk jaam mën na nekk lu ne mën na nekk fas mën na nekk lépp lu nit ki di soxla woo rek keroog ñu daal di ne xaar ñu dem séddoo loolu wàcc boobu nag ñu wàcc keroog ci montagne yooyu ci la Xaalid ibn Walid comme ni ngeen ko xamee ci siira daal di gis faay bi rek daal di leen contourner ñu songee leen ginnaaw ba lii xew nii xew waaye nag ba ñu gisee ne nag yonent bi salaa salaam rumeur boobu ñu doon wax ne moom yonent bi dafa daanu ci xare bi shahid na ah ba ñu gisee ne loolu amut rek jullit ñi daal di amaat nag courage amaat kàttan amaat doole jóg nag songaat yéefar yi ba tas leen ba ñu mujj daw bàyyi ne ne rabbi inni bi ahli badrin bi ahli badrin waxtin fal tut xif lii isdiyaara tilkal maxaali mu ne rabbi ay borom sama inni maa ngi lay ñaan man bàyyi bi ahli badri ci barke waa ñooñ badar ah wa uxdin wa uxdin ak ñooñ ñooñ uxud barke ñooñ waa badar ak ñooñ uxud ñi fa daanu ñépp fal tuuti xif lii yal na nga yal na nga ma dogalal yal na nga ma may isdiyaara ma ziyaare telkal ma xaali yooyu la bërëb kon foofu la bunt bi yam yàlla nañu ko yàlla defal ñu nit wama zalika àlallaahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu